yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla fay leen waaw waaw ci ginnaaw ci ginnaaw loxo yi waay waaw waaw waaw seen añang dégguma la de jigéen ñi. jërë ngeen jëf. nga jigéen ñi nga jële waay waaw waaw na nga taxañ nun gëm nañu lii wóor nañ ku gëm na nga wax de ku gëm na nga wax de wax leen ko demar yëri maaw ma jaawéer nga xam baat ba na ñëpp egg suuf nag toogaat toog bu jeex kami ndeysaan lay lay la laa ne ñëpp egg suuf te bàyyi coow li nag waykat yi alaaji gasu alaaji naa ñang daal di tàmbali nag seen liggéey nag dama bëggoon xol yu féex rek te yaakaar naa xol yu féex na waaye tontu leen ma xol yu féex na waay waay waaye xanaa leen ay loxo xol yu féex na waay waaw kay léegi nag léegi nag léegi waaye gaa yaa ngi ñëw doyagul doyal ngeen waaye dégguma leen doyal ngeen waaye tey tey la tey jii la bàyyi laay taxawoon wax waxam ju ji cëy bàyyi yaa doon ko yàlla fayal jërëjëf laay ah ah wiyee eh. yow nag yaa yaa des doxalal sa liggéey nag mu neex tey tey wiyee wiyee ngi ci forma nag yàlla yàlla jàppale leen bismillah Muhammad al Musa Ahmad al Muxtaaru micro adiyal waraalamiin la loolu muhammad al musawa ahmad al muxtaar adiyal waraa seen maam li maamu la noonu faydaani fekkene ree reetul li am soodaani moo tëj xërëm ya ya fa ne woon seen maam tur xamba yaag wisaar ndaa yaka defoon saxal fi wéetub yàlla mii di laaw si baatub laa ilaaha illa janta feeñ na yàlla ma yónni jaamu leen mbir feeñ na mali maamu maadi yoo mi ngeen doon seenu ñëw naa na ngeen tu ca bañ maa noonu ay gaañi gaañi ay waleen te baat ba ñi naan mooma ay waay maa la ko wax ah lay talo taaloo mu nu yàlla moom imaamul aramayni alaaji Idrissa yàlla na la fay mu baay Abdoulaye jërëjëf yéen xam ngeen ni bàyyi laay alayhi salaam yaa rasulullaay mi ngi nii am na ku fi nekkal am na ku ko fi toogal ci sees bi ki ko fi toogal mooy sunu baay Mouhamadoul Makhtar doomi Seydina Mandione ma bëgg balaa Seyna Ñang ñëw ci li ñu xam ni waxtaane nan ko ñun waykat yi pour animation bi lii des gannaaw ba sunu baay Idrissa dirigé baay Mamadou Makhtar mi nga xam ni mooy xalifa tey xale yi nga xam ne yëpp mosuñu ko teg bët boo waxee lii ma wax nii billaahi wallaahi wa taalaay ci yow jox na la loxo kan moo bëgg siyaar xalifa bi laa wax bëgg ngeen siyaar xalifa bi dama bëgg ñun ñëpp góor ñooy ànd mu riir àdduna xam ni kii toogal yaa rasulullaay mi ngi nii mooy xalifa bi doomi xalifu naa ñoo ngi siyaar Seydi Muxtaar mu maam ma njoon ñoo ngi ñaan buur nga yàgg fi yéenew leen ko mu yàgg fi xanaa bëgg ngeen xalifa bi yàgg fi i bëgg ay bismillah Seydi Muxtaar mu bàyyi ma ñoon ñoo ngi ñaan buur ga lay siyaar Seydi lay siyaar Seydi Muxtaar mu bàyyi ma ñoon ñoo ngi ñaan buur xaaju ngi ñaan buur nga yàgg fi lay xalifa bi noo ngi lay siyaar Seydi Maxtaar mu bay ma joon ñoo ngi ñaan buur nga yàgg fi lay xalifa naa ñoo ngi lay siyaar Seydi Maxtaar mu bay ma joon ñoo ngi ñaan buur nga yàgg fi lay xalifa bi noo ngi lay siyaar Seydi Maxtaar yàgg fee. lay xalifa bi ñoo ngi lay siyaar. waay gars yi def leen nii ci xalifa bi. ku ci jaar yal na yàlla fay sa aaju. ñoo ngi ñaan pour ma yàgg fee. lay xalifa bi ñoo ngi lay siyaar. Seydi Maxtar mu bàyyi ma joor. ñoo ngi ñaan pour nga yàgg fee. Seydi Muxtaar mu maam ma joor ñoo ngi ñaan buur nga yàgg fi lay xalifa bi ñoo ngi lay siyaar Seydi Muxtaar mu baay ma joor ñoo ngi ñaan buur nga yàgg fi lay xalifa bi ñoo ngi lay siyaar waaye loxo jakkaw loxo jakkaw waaye yambulaan yambulaan yambulaan ñoo ngi ñaan buur nga yàgg fi lay xalifa loxo ci kaw loxo ci kaw loxo loxo laay xalifa bi noo ngi lay ziar Seydi Mokhtar mu bàyyi ma jox ñoo ngi ñaan buur nga yàgg fee laay xalifa bi ñoo ngi lay ziar ñaan buur nga yàgg fi laay xalifa bi noo ngi lay siyaar Seydi Maxtaar mu bay ma joon ñoo ngi ñaan buur nga yàgg laay xalifa bi ñoo ngi lay siyaar Seydi Maxtaar mu bay ma joon yàgg fee xalifa bi ñoo ngi lay siyaar Seydi Muxtaar mu bay ma joor ñoo ngi ñaan buur nga yàgg fee siyaasa sinda de muhrib kaama baba sew fii laylati lahdi min rabbi samaawaati يا رسول الله في أساس رب السماوات مغنى رسول إلى ثقلين شملهما يجدد دينته عن بي رسالة بيا مجمي ورام كل لبيب اسم مدينة بأم خمس ونرش من دلالة loxo ca loxo yi waay yëkki leen loxo yi yëkki loxo yi bat baa ngoog aaji boo aaji boo dayaay ayaama seralin si wal jinni ini rasulullaay رسول الله إليكم jaal amru wax leen lii waxam wallaahi bu doon lu feeñ yelaaye mooy wax jawoo te yàlla suuxu ko xam amul keneen may lay ne ki booda yelaaye amul keneen kuy wax waxam wallaahi amul keneen. Limaamu Laay maa di laay. walaay. Limaamu Laay maa di laay. Madina xayrul waraa. Limaamu Laay maa di laay. Madina xayrul waraa. baylay ni ajibo ajibo ajibo la ajibo dayalay islam ajibo ajibo la ajibo la la isla ajibo ajibo ajibo khairul mabus anisil gharibina tajul arifina ajibo ajibo ajibo ajibo باي وسلام من باي لايني أجيبو أجيبو يا ملك من قد وفقا صل على من كل فقا أجيبو لا يا أجيبو لا يا لا وسلام عاجبو عاجبو لا عاجبو دالا وسلا لما عاجبو yonen la wote sanga bi lay lay lay lay yonel la woote lay sama bee lay lay la la amin alaa maaya seydina limaamu lay seydi muxtaar wa seydi alamin allahumma bay lay sali alaa سيدي المختار هو سيد العالمين المرسلين سيدنا الإمام راي سيد المختار وزيد العالمين اللهم بين على سيد العالمين اللهم بلا يسلي على سيدنا الإمام العائل سيد المختار هو سيد العالمين جيلا اللهم صلي على سيدنا الإمام العائل سيد المختار هو سيد العالمين اللهم بلا سيدنا ajiroori bayraaye yonnende laa ilaaha illallaah bayraaye yonnende laa alasan bayu manatulay sene alasan bayu manatulay ñogu sene alasan bayu manatulay sene alasan tawhid tuula Mustafa yaay suñu yongu manu dam nañu dam mam sey de daan roolaay saanu xal xol yi feebu dañul doy sunu xol yi yaakaar ji bay raayay bu saa mooy xayru xalxila wax leen woosoo daan am nañu dam moom Seydi daan amati nañu daan moom Seydi daan amati nañu daan Ndakaaru gi am nañu dam Ndakaaru gi fi la lépp ne salaatan wa tasliman ala xamare